asalaamualeykum son excellence président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye yóbbal buy jagal monsieur basiiru Diomaye fay réew mi yow lañu fal dogul ci dëggu te jaar ci yoon te jubal son excellence na nga am jom noon yu dañ la xëbal daañu la wër di la gerlal fiir yu lay këppatal noppil te jëf bu fi naa loo sangu nanga ko tëral looy jëf na leer nàññ moytul digeloo mënagul defal sa warteef ba leen ñuy wax ku jiitu du xul koy gànt warteef di laaj ak xam ya mooy xajamal kilifa yii na nga leen jox cër ku yàlla teral màggal ko fonk ko wormaal ko taxul nga ragal son excellence mbënn maa ngi fi dëkk bépp a ngi wal te assainissement biram gaawul ku koy tabaxal son excellence xëyum ndaw ñi diis na bàyyi ci xel ñi jàng am ne jiital leen ñu doon sa ndimbal son excellence napp càmm ak mbay mi nanga ko dundal bu ñam bi yombee pajookum njàng dang nu sagal son excellence na nga wut tool bay te bul ko xatal commune bu nekk nga am fab tool da leen di sigil son excellence buur bu dee bay sàmm dal di sagal baadoo la bay gantu mbay ak ñàkk tax mënagul son excellence addu kalpeek càcc na nga ko jógal tir yaa war a tappaleeg caay-caay gi daa waratul son excellence sama yéeneeg saa cofeel gi xajul ci ay bayit ba ma koy lim ngir du tax ma matal yàlla na la buur yàlla may wér te fegal nu mbugal musiba yéeki balaa xéewal yi ànd diwal Mbàkke Bawal alxames ñeenti fan ci weeru avril 2024 Ahmadou Diongo Baye Diagal bal leen ma ak jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati